salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi noo leen nuyu bu baax di leen siyaare ci turu Touba ca kanam di ñaanal ñëpp di ci jiital sunu kilifa sëriñ Mountakha ñaan sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ak mbokki taalibe yëpp ak mbooleem jullit nu dikk ci leeral ni ñu ko baaxoo defee ci Touba ca kanam weer wu nekk ñu wax la ca dugg ci compte Touba ci kanam ak la ca génn ak li Touba ci kanam dese ci ay kontam weer wi nag di weeru octobre moom la ñuy gaaral tey ci Touba versé nañ 68 millions 607 mille 842 bu dee wéef bi 78 mois d' octobre bi deux millions cent dix huit mille neuf cent cinquante six dugg na ci Orange Money muy plateforme bi jees cent quarante quatre jees cent vingt et un li ci dugg ci weeru octobre mu ngi toll ci quinze millions six cent quarante et mille cent quatre vingt bureau Dakar ci njiital bàyyi Serigne Bousso ak Alhaji Ndaw dugal nañ ci compte yi cinq millions six cent trente huit mille neuf cent Pout ci njiital sëñ Ababacar Ndiaye versé nañu ci compte yi soixante six mille Mbacké Adja Diorgay Serigne Mama dugal nañu un million cent dix mille Dagana ci njiital Baye Saliou Baye Saliou Lay dugal nañu ci compte yi cinquante mille. Diourbel soxna Ndeye Ndiaye soxna Daba Mbacke un million quatre cent quinze mille. Koudiane Serigne Ibra Niang soixante trois mille. Xombal Mbay Fay deux cent cinquante mille. Louga Serigne Moustapha Bassirou Mboup deux millions six cent trente et mille cinq cent. Yarawaay. Yaa Fatma Dieng cent dix mille Kébémer Serigne Gora Sil un million quatre cent cinq mille Kaolack Serigne Moustapha Touré trois millions cent vingt mille deux cent Saint-Louis Serigne Ridial Seck Soxna Rama Fall cent cinquante mille Taïf Soxna Daba Thiam vingt quatre mille Bambey Serigne Abdou Fall trois cent mille Kolda Serigne Moussa Sène cent quatre vingt mille Worosogi Soxna May Mbàkke deux cent mille Touba Soxna Sodo Diop cinquante mille Vélingara Serigne Mbàkke Gueye cent mille Fouta Bokkilaaji Mamadou Dia cent cinquante mille Daaru Musti soxna Muslim Mbàkke cinquante mille versement anonyme maanaam ñi dugal xaalis te xamuñu seen tur toll na ci un million deux cent trente mille seize francs Daaru Salaam Diouf Sëriñ Yuusu Cuun trois cent cinquante mille département Linguère Sëñ Seex Joreel Mbàkke un million cinquante mille Moudéri Serigne Bassirou Ndiaye cinquante mille Ndiawara Serigne Cheikh Anne cinquante mille Kellel Serigne Cheikh Diop cinquante mille Gassane Soxna Faati Mbeng cinquante cinq mille Ayré Lao Fouta Serigne Xaarim Sow cinquante mille Korasma Diaroumbe Serigne Moudou Makhtar Mbaye cinquante mille Ngunjaan Serigne Modou Thiam cent mille Ranérou Serigne Souleymane Diagne cinquante mille Njàppandal Soxna abifay vingt mille Casamance Mamadou Khary Gueye deux cent vingt mille Daaru Minam Bamuk Serigne Ibrahima Congaan cinquante mille Ndoobe Lay Ndoobe Lay Serigne Fallou Fall vingt neuf mille Colobane Soxna Thiam vingt et mille Jem Dialle Kabou Kebe vingt deux mille Madina Touré Soxna Ummi Fallou Mbacké cinq cent cinquante mille Dakar Yoff Ndëngaan Lay Gote Diop cinquante mille Mboro Serigne Djili Seck cinquante et mille njum gént sëriñ Muudu Mbay cinquante mille li nga xam ne moo daje ci biir réew mi mooy zone nationale toll na ci cent sept millions huit cent quatre vingt mille cinq cent cent sept millions huit cent quatre mille cinq cent quatre bu dee ci bitim réew ñu tàmbalee ko ci zone Asie maanaam continent Asie Liban Aline Badara Dabo deux cent mille Japon Cheikh Jigal Diop trois cent quinze mille loolu moo jugee ci zone Asie total bi nekk cinq cent quinze mille bu dee zone Amérique continent Amérique Chili Serigne Khadim Mbaye cent quatre vingt mille Argentine Serigne Pape Soda Sey cent trente sept mille Canada Serigne Pape Amar quatre cent soixante mille. Brésil Serigne Cheikh Ndiaye quatre cent cinquante mille. total bi doon un million sept cent trente mille. bu dee ci zone Europe continent Europe Suisse Serigne Ndiaga Aw huit cent vingt cinq mille. Italie coordination bi neuf millions. 373 176 France coordination bi 2 millions 335 769 Espagne Serigne Malick Dieng 751 193 total Europe bi doon 13 millions 285 138 bu dee ci zone Afrique continent Afrique Guinée Conakry Serigne Abdou Thiam 533 000 Gabon Serigne Pape 6 837 000 Congo Brazzaville Serigne Alhaji Diouf 250 000 Mali Serigne Aliou Wacc 806 000 Afrique du Sud Serigne Mor Dieng 225 000 Côte d'Ivoire Serigne Mor Fassa 1 million 250 000 Guinée équatoriale Serigne Khadim Diop 844 500 Mauritanie Serigne Ibrahima Sarr 1 million Cameroun Serigne Cheikh Niassa Gueye 2 millions 77 mille boo boolee li jógee ci continent Afrique bi yëpp mi ngi doon 7 millions 822 mille 500. bu ñu boolee li jógee ci biir réew mi ak bitim réew ñëw ci Touba ca kanam. ci weeru octobre mi ngi toll ci cent trente et deux cent cinquante cinq mille deux cent cent trente et un millions cent cinquante cinq mille deux cent ñu ñëw ci jaayante bi nga xam ne moom du bokk ak carte de ak euh, récit bu dee ci biir réew mi jaayante bi 36 millions 6410 dugg na ci bu dee ci zone Europe jaayante bi deux millions quatre vingt mille cinq cent dugg na ci. bu dee ci zone Afrique jaayante bi deux millions six cent soixante-sept mille dugg na ci kon totalu jaayante bi lépp mi ngi toll ci quarante millions sept cent soixante mille neuf cent bu fekk see li ñu tuddoon léegi ci carte membre agressif total bi day doon. ci weeru octobre bi cent soixante douze millions vingt deux mille cent quarante cent soixante douze millions vingt deux mille cent quarante deux. ginnaaw bi ñu waxee li dugg si ci compte yi ñu wax nag li nga xam ne moo ci génn ci liggéey yi Touba ci kanam di amal poste de santé ndaam ci weeru octobre quatre millions huit cent soixante deux mille dem na ci santé université cinq cent mille dem na ci sànce Touba Njaareem trois millions cent quatre-vingt-quinze mille sànce Daaru Xadim ci poste de santé bi deux cent vingt mille commission santé li ñu jël ci weeru octobre mu ngi toll ci soixante-six mille commission communication trois cent dix mille charge fixe ak salaire ci weer octobre cinq millions cent sept mille cinq cent commission membre mooy carte de membre yi ak reçu yi liñ koy liggéeyee weer octobre bi def nañ ci un million cinquante cinq mille budget de fonctionnement mu ngi toll ci un million ci weeru octobre opération defar yoon yi muy assainissement bi ak tali yi ci weer octobre bi def nañ ci trois cent quatre millions sept cent vingt huit mille cent quatre vingt seize. commission logistique ñi nga xam ne ñoo yor jumtukaay Touba ci kanam yépp vingt sept millions cinq cent soixante sept mille deux cent vingt cinq. commission massification moo yor yaatal gi ci Touba ci kanam quatre cent douze mille. commission organisation six cent quarante neuf mille. commission leeral deux cent mille moo ñu yor wàllu montage su lampa lampadaire yooyu ci mbedd yi frais yi ñu def ci bureau Dakar cent six mille trois cent frais bancaire mooy yi ñu dagg ci compte Touba ci kanam quarante quatre mille trois cent vingt lii lépp bu ñu ko boolee Touba ci kanam génn na ci weeru octobre bi trois cent cinquante millions vingt sept mille 544 bu ñu jëlee nag li nga xam ne am nañ ko ci weeru octobre te muy million millions 22 mille 142 mu fekk si li ñu amoon ci weeru septembre li fi nekkoon ci weeru septembre 1 milliard 86 millions 551 mille 799. bu ñu xoolee li ñu am ci weeru octobre muy 172 million 22 mille 142. mu fekk si li woon ci compte yi ci weeru septembre di 1 milliard 86 millions 551 mille 799 lépp dafay doon 1 milliard 258 millions 573 mille 941 ñu daal di ciy génne décaissement yi ñu wax léegi mooy li ñu génne ci weeru octobre bi mu toll ci 350 millions 27 mille 544 kon li nekk ci compte yi ci fin octobre mi ngi toll ci neuf cent huit millions cinq cent quarante six mille trois cent quatre vingt dix sept neuf cent huit millions cinq cent mille trois cent quatre vingt dix sept noo ngi sant taalibe yëpp ci seen guy si Touba ca kanam waaye di jaajëfal collecteur ak collectrice yi nga xam ne ci ñoom la ñuy jaare ngir mën a barkeelu ñu ngi ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te wér te matal yéeneem ci liggéeyub Serigne Touba. wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.